إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع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 tey jii nag dañu àndoon ak Ibou Cissé rek mu demalaan nu fële ca Washington ca Amérique euh, àndoon ko ak imaam Cheikh Tidiane Cissé yoo xam ngeen ni barki dem rek la ñu jógee Kaolack waaye tabarakallaahu laataa nu doon dem Kaolack liggéey ba foofu la doore imaam Cheikh demoon fa ci ubbite jumaa bu am solo boobu nga xam ne njabootu Cheikh Ibrahima Niass gépp a fa teew imaam euh, Cheikh Tidiane dem jiite leen àndandoo ak ña nga xam ne ñooy sénégalais ya fa nekk waaye àndandoo américains ya fa nekk Euh, ba ñu defee su bayaan ba ba noppi def xutba bi jullee doog ñoom ca Amérique Washington pare rek daal di def waxtaan imaam Cheikh dafa waxtaan wu am solo euh, woo xamee ni ci wolof la ko def ñu tekki ko ci anglais xam naa Ibou dunu sori comme yow yaa demoon dama lay bàyyi rek Ibou Cissé bu baay ñu teewlu waxtaan woowu ak julli googu euh, ca Washington Amérique incha allah kon bismillah أشهد أن حي على الفلاح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 الرسول ويضع الشعب تجعل الله إليه التراب لله الذي أمرنا بتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب درجة رفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا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 wa ida raaw tijaratan aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuka qaa'ima qul maa inda allahi xayrun min allahwi wa min altijara wallahu xayru raziqin allahu akbar sami allahu liman hamidah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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar. lañ xutba léegi ajuma Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo ko bind. alhamdulilah ci mbokkoo ci lislaam all pré mbokkoo moo tax ñuy dox suñu diggante ak ñoom. ak fu ñu dem ci àddina gis nañ ne moom rek lañ leen war a jàngal tey pour ñu xam mbokkoo naka la nit war a def ak alhamdulilah all praise be to Allah. The Sheikh is saying that the khutbah he did today was written by his grandfather Mawlana Sheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass on brotherhood. in Islam. And being that his visit today here is the only purpose is brotherhood, and the hospitality you extended to him here in this masjid also is only due to Islamic brotherhood, he thought that it might be very fit to read the khutbah which is dealing with brotherhood in Islam. He regardless of how many khutbahs Sheikh Ibrahim wrote, he thought that today's topic which really suit this gathering is to talk about brotherhood in Islam. lu tax xutba mi itam doy ñu dafa am benn sëriñ ci Nigeria dafa waxoon ne li tax ñu topp Cheikh Ibrahima Niass mooy ne gisuñ ku ko gën topp sunna yonent bi ci bi ñuy dund ñoom. he say why he choose also the khutba of Cheikh Ibrahim because one scholar in Nigeria said that for the whole time they follow Cheikh Ibrahim but the way they see him sticking in the sunnah which is the path of the Prophet sallallahu alaihi they don't see no other person who did it. moo tax ñu doyloo waxam yëpp ba nga ne waxtu nekk rek mel ni waxam mën naa def ak jamono ji. That's why he consider whenever he is talking about the teachings of Sheikh Ibrahim he you will feel that the man is still alive and the topic is right fitting on the time regardless of how long he wrote it. ubbi xutba bi wax ne mu ngi sant yàlla mi nga xam ne moom mbokkalee roxo yi ba jëmm yi di amat fii. He said, Sheikh Ibrahim started the khutbah by saying that he praises Allah who bring brotherhood between the souls before creation. yàlla yëpp ci yow ma uh, alastu bi rabbikum allah rox yëpp nangul ne nangu ne yàlla mooy seen borom yi nga xam ne nag ñoo ci juboo woon ci jamono boobu ci roxo yi ñooy àndaat fii ci kaw suuf bu ñëwee ci jëmm yi nga xam ne ànduñoon dañuy wanante gannaaw bu ñëwee fii ci jamono. Allah when he created the souls and asked them they all accepted that Allah is the creator and the souls who accepted and loved each other in that period when we come here also they be together and those who departed also in that period in this life also they be apart. mu ne kon mu ngi julli ci yonent bi nga xam ne moom mbokkale muhajirina ak lansaar bi mu demee Madina. Shayban also is. offering prayers upon the Prophet wasalam, who bring brotherhood between the Mujahirin, Mujahirin, Muhajirin. And, Mujahirin and, and Ansar when he migrated from Makkah to Medina. bi muy jógee Makka ñoom muhajirin juróom-ñeent fukk lañ ñi mu fekk Medina itam ci lansaar juróom-ñeent fukk lañ. when he left Mecca the brothers he left there with him was 90 people and when he also arrived in the brothers who welcomed him were 90. mu mbokkale ñaar ñu nekk mu ne diw diw mooy sa mbokk diw diw mooy sa mbokk. and then he put each one of brother with another brother and say you this is your brother you this is brother one by one until nine brothers each one had another brother in the. des moom ak Seydina Ali mu ne moom Seydina Ali mooy mbokkam. except him and Seydina Ali and he say me Seydina Ali is my brother. mu ne mu ngi jul ci yonent bi nga xam ne moo def mbokk googu mbokk googu mooy dox ba moo ñu indi fii tey. ñu mën a taxaw fii di bokk ak ñoom di julli ajuma. And Chairam is offering prayers of the prophet who initiated that brotherhood, which we follow up to today. It's because of that brotherhood that we are together. te mu wax na ne mu ne boobu àddina bi yëpp li fi nekk ñeenti téeméeri million lañ. And at that time it was only 400 million people living on earth. man ngaa wax ne jullit ñi itam boobu. junne la ak juróom téeméer la ak juróom-ñett fukk. And at that time the Muslim community was léegi bu àddina bi nekkee juróom-ñaari milliards ak dara itam jullit ñi mat nañ milliards ak genn wàll lu mu ëpp ko. nowadays if the world count seven billion people at least one point billion people are muslim. te mbokk googu nga xam ne moom la yonent bi defoon Mawlana Cheikh Ibrahima itam ba mu ñëwee moom la topp doxal ko ba nga xam ne boo jógee Sénégal foo mën a dem ci àddina rek da fa fekk say mbokk yoo xam ne ci lislaam da nga mën a jëflante ak ñoom. and the same way the Sheikh Ibrahim Niass was following the steps of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is why nowadays, any country you arrive in this world, as a disciple of Sheikh Ibrahim, you'll find a brother who followed also the sunnah of the Prophet and who is relating to Sheikh Ibrahim Niass. te loolu rek mooy doole bi nga xam ne moom mën a may jullit ñi doole. and that is the only power which the Muslim community need brotherhood. bu ñu àndoon nekk benn rek doole la ñuy nekk boo xam ne kenn du leen mën a tekku. if we unite, we'll be a am na benn góor goo xam ne bi mu demee bay génn àddina dafa wax doomam yi ne leen nañ ko indil ku nekk benn mat ñu indi ko mu ne boole leen ko ñu boole ko mu ne dammal leen ma say bi ñu ne ko say bu booloo kenn ko mën a damm mu ne tasaat leen ku ñu tas ko mu ne ku nekk na damm benn ku nekk jël benn rek damm mu ne bu ngeen boolooyee say ngeen di nekk kenn du leen damm su ngeen tasaarooyee nag nekk benn benn ñu damm leen par benn ba ngeen jeex. he say one old Muslim scholar before he passed he called his children and asked them each one of them to go And he said, break it. And each one of them break his piece. He said, now go bring another one. They break it. He said, put it together. They put all the piece of wood together. He said, say, it's impossible. the example. If you unite, nobody will never be able to break you. And if you are apart, people will be able to break you one by one until the community will be over. mu indi nag xadis yi mu indi ay alquran yàlla ne innamal fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha laallakum turhamun ne jullit ñi ay mbokk lañ nañ rafetal nañ rafetal diggante mbokk googu te rak ragal yàlla that the Muslims are brothers mu indi itam xadis yonent bi imam muslim moo ko riwaaya jëlee ko ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne bu leen añaanante bu leen bañante bu leen daqante ci seen biir bu leen ku nekk di ber moroomam na ngeen nekk ay mbokk jullit jullit mooy mbokkam bu mu ko tooñ bu mu ko toroxal bu ko jébbale itam ci fu ñu koy fitnaalee ak ah, ba pare ne ragal yàlla mu ngi fii ragal yàlla mu ngi fii joxoñ dënn moom yonent bi maanaam joxoñ xol bi waaw said the hadith he just narrated was in Muslim where the Prophet sallallahu a Muslim is a brother not fight him You should not separate with him. You should not, you know, betray him. Uh, you should always be helping him whenever possible. And the Prophet mentioned, you know, first in pointing toward his heart, that a Muslim is a brother to another Muslim, and he should really. The fear of Allah is in here, is in here, is in here, in the heart. mu waxaat ne jullit bu nekk léppi jullit xaraam na ci yow alalam xaraam na ci yow nga jël ko te may loo ko mm. deretam na ci yow mm. ah. he say for every Muslim for, for every Muslim the whole of the Muslim a Muslim is haram to him which means that you should not take his wealth you should not bring his blood out which means harming him and also you should not backbite him or bring any type of fitna on your Muslim brother bu mu xeeb itam mbokki jullitam ndax moom ci boppam mu ngi amee ayib yoo xam ne war na koo doy ba du xeeb ay du wax ayib bi nit wala mu koy xeeb ngir loolu. don't even talk about their fault because any person has his own fault and that should be enough for you to worry and to deal with than talking about the te loolu war na koo doy ba mu jéem a xeeb beneen mbokkam boppam war na koo doy. and yourself should be enough problem to you in order of talking mu indi at xadis ibnu xuzaymat ak ibnu xibbaan ñoo ko riwaaya jëlee ko ci abdullah ibnu omar ibnu xataab abdullah ibnu omar ibnu xataab mu ne yonent bi sallallahu alayhi bi si fatxu makka wax na te fekk mu ci kaw gëlëm moom yonent bi di wax ne ee yéen nit ñi seen boroom kenn la muy yàlla seen baay kenn la muy aadama yéen ñëpp yéen a bokk bu ci kenn jéem a beddi moromam wala mu koy wan ne ko yow lii nga man lële laa benn borom lañ am benn baay lañu am muy Adama alayhi salaam. Uh, in the hadith in narrated uh, say that the prophet while he was riding a camel was saying to the people all oh, you people you are one brotherhood don't try to set your brother aside to show off him or to act like you are better you all the same and you all are brothers and sisters and you should be together. arab gënut. a non-Arab. ku fekk ku weex gënul ku xonq. White ci ragal yàlla rek. ku gën a ragal yàlla daal yaa gën fa yàlla. the imaam Ahmad tam solo na mu ne nettali na ko am na ku ko nettali koo xam ne fekkee ne bii ko yonent bi di wax sallallahu alayhi buy wax ne xam mu ne am na ku ko nettali ne ko fekke na bi yonent bi di wax ne ee yéen nit ñi yéen ñëpp benn ngeen seen baay benn la benn góor moo leen jur seen borom kenn la mu yàlla ñaari nit rek ñoo fi am nag ku baax di def lu baax ñu jàppee lu ku baax ak koo xam ne safaan ngay def ñu jàppee la nit ku bon. say uh, uh, Ibn Ahmad say he was present when the prophet was saying hey oh you human being you have one same father which is Adam you have one common lord which is Allah who created you and you should unite and be uh, brothers and sisters. nekk benn. and it's only two different people the one who is following the good path and we consider it as a good person and the one who is following the wrong way and we might gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen. and waaye ci boppam indi waxam ne yow nit te nit kooku bu ma ko waxee nit ku nekk laa ci jublu ne nit ñi ñaari xaaj lañ pencam yàlla xaaj boo xam ne ñu jege yàlla lañ ak xaaj boo xam ne ñu sori yàlla ñu toroxal lañ. Say Cheikh Ibrahim in his speech he said he considered mankind as two groups. One group is very close to Allah. am the other group is far away from Allah. benn xaaj bi ñu ngi ci ay lal yu yëkkatiku nekk ci ay xéewal benn xaaj bi ñu ngi leen eewu ñu nekk safara. one part as on a very high station and be receiving very good tidings and the other half half is in a very difficult situation because they tie them in the hellfire. moo tax nit ki mu ne war naa góorgóorlu rek ndax xamagoo ci ban nga bokk. that's a human being we should try to do our best because we don't know in which group we belong. xamuñ ndax ci bële lañ bokk xamuñ ndax ci bii lañ bokk. we don't know if we belong to the good group or if we belong to the bad group. mu indi beneen xadis tajee ko xutba bi. and he narrated another hadith close the ko ci Seydina Ali ibn Abi Talib. from Ali Seydina Ibn Abi Talib moo yëkkati xutba googu gu jëmee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moo ko solo déggee ko ci yonentu bi. an Aliyu he received it from the li ma leen gën a ragalal. the Prophet say mooy topp bànneex ak gudd bëgg-bëgg. is to follow your nafs and your just your your your self need. mu ne topp bànneex dafay dëdduloo nit ki dëgg. because if you follow your nafs it will turn you back to the to gudd bëgg-bëgg itam dafay tàng nga fàtte alaxira and if you a big desire you'll forget about maa ngi leen di xamal ne àddina bi wane na gannaaw ba pare mu ngi dem. and the prophet say I'm letting you know that this world is just turning wane na kanam mu ngi ñëw. and uh, góor góorgóorlu nag ba bokk ci doomi alaxira bala yi nga xam ne mu ngi ñëw mu ne moo gën a wóor ngay góorgóorlu di bokk ci àddina joo na gannaaw. He said work hard to be among the children of the hereafter mu ne tey nag liggéey rek moo amal moo am xisaab amagul. He said today it's only working Euh, accounting but just today you work but the pay is not coming right now. bu ëllëgee itam wala xira taxawee xisaab rek mooy am liggéey du to am. and here in the hereafter then there will be no more work you will not pour ku nekk ci na jéem a def ay def yu baax nga xam ne buñ lay xisaab doo ci ragal dara. so he is advising us all of us we try to do a good work. to do good deeds, to do so that in the day of judgment, when they assess us, we te bu kenn nangoo jëf ay jëf yu baax itam ba pare ñu dem alaxira fekk tooñoon nga kii jëloon nga yëfi kii nga ñu fayee ko nit ñu yow nga perte. not only we have to do good deeds to follow Allah but also we have to respect our relationship in the brotherhood. Because do bad to any brother here in this life, in the after, they'll take from your good deeds and pay ki da war a moom rek. So we have to be to, to respect all all the, all the people. ni nga fonkee ñi nga xam ne bokk ak ñoom dara noonu nga war a fonk ni nga fonkee ñi nga bokk noonu nga war a fonkee ñi nga bokkutu dara. The same way you respect your own people, your relatives, the other people whom you are not related. am na benn wali yu dafa fase woon benn jigéen. one wali of Allah one saint he divorced am benn waaye bu gis jigéen ji bu ko tàkk. one another brother saw a wife and wanted to get married to the woman. mu ñëw ci waliyu bi di ko laaj ne ko kii dama dégg na yow yaa ko amee woon dama la bëgg a laaj ndax jikkoom baax na bala ma cee dugg ndax dama ko bëgg. and he came to the first husband and tell him I saw your divorced wife and I'm interested in her but being that you, you were her husband I would like to know what her Euh, characters so that I know she a good woman ko kii ba muy nekk suma jabar sax aw ma droit wax ci moom rawatina léegi bi nekk jàmbur ci man. this woman when she was my wife I didn't have the right to talk about her private life when she was my wife let alone now I be able to mooy li yonent bi wax ne bul ko waxal lu bon. that's what the prophet say don't say anything bad about anybody. kon nag ñëpp jullit ñëpp noonu nga war a def ak ñoom ñoom nga war a. all the Muslim te loolu mooy mbokkoo ci lislaam nga xam ne moo tax a jox ko bëggee Islam which we mention in this uh, lislaam googu itam moo ñu fi indi ñun tey nii. and that is the same reason that brotherhood in Islam is mbokkoo googu itam moo tax ñoom ñu jox ñu seen juma pour ñu julli leen. brotherhood in Islam is why you mm, give him the hospitality to be able to honor it by leaving the jamaat in Jumaat. ndax loolu benn teraanga weesu ko ndax war nga nit ki ne ko. li ma mën xam naa ne mën nga ko. because there is no higher hospitality than what you did today as imam you tell him here is my jamaat. lead them. That is to recognize that I know that whatever I can do or whatever I deserve, you also, you deserve it and you can do it. So you are my brother. The same way uh, I want it for myself, I want it for you. So come and lead my jamaat. Arab yi dañoo wax ne kenn du xam lu baax lu may nit ku baax. He say the Arab say nobody knows good except the one who is a good person. borom ngëneel itam mooy nangu ngëneel li nit. and only the person who are in high esteem. while highly respected can also respect another person. Ah, moo ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. therefore he di leen ñaanal yàlla itam. and he is praying yàlla gën leen jàppale. may yàlla gën leen a dimbale. may Allah help yàlla def barke ci ñoom. may Allah bring blessings in this community. yal yàlla defal leen jàmm ñoom seen bopp. may Allah bring peace. jërëjëf mbokk yi jërëjëf itam ñi ñu àndaloon jërëjëf Ibou Cissé bu Baye. Eh, moo nu teewalan foofu xam nga lii muy dëgg mooy yoon moo am solo itam mooy tabaarakalaaw waa kër Cheikh Ibrahima Niass di dem ni Ibou Cissé ñëwal ñu àndandoo dem liggéey liggéey bu réy boobu ngeen gis ànd ko ak imaam Cheikh Tidiane euh, Cissé euh, bu Seydina Alioune Cissé di euh, imaam raatib bu jumaa yi Medina Baye ñu demal nag ca Washington ci ubbite jumaa googu waaye nag gërëm nañu nag tabarakallahu njabootu Cheikh Ibrahima Niass gépp waaye njabootu Papa euh, bi nga xam ni moom moo fi nekkoon xalifa ginnaaw bi nga xamee ni moom la Serigne Cheikh Tidiane si ñëw Cheikh Ibrahima bu baay euh, bu bu Papa Dame te tabarakallu nekk foofu ci Amérique doon doon lool nag yoo xamee ni li mu liggéey foofa ci Amérique rëy na lool lool moom foofa la féete tabarakallahu ak ki nga xam ne euh, mooy Cheikh Baye Cheikh Baye itam di kenn koo xamee ni liggéeyam euh, rëy na loolu ci Médina Baye yal na ko yàlla dolli na ak sëñ Haadi euh, moom itam euh, yal na yàlla dolli ko ndam ab sëñ Haadi Abdou Salaam Eh, tabarkalaaw ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla eh, ajaa seere ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di ak ajaa Fat Samb nga xam ne ñoom ñëpp teewoon nañ ci liggéey boobu waxtaan woowu nag imaam Cheikh yàlla yàggal ko te wéréel ay cëram ndax fu taalibe bàyyi nekk rek fas yéene na faa yegg def ko lu am solo kon Ibou Cissé moom la ñu àndaloon ca eh, Washington ca Amérique mu indil nu jumaa ju am solo jooju yal na yàlla dolli ndam ndax moom maag moom ñooy liggéey jumaa yi tabaarakallaahu bi ñu ñàkkee jot rek mu ànd mu daal di fas yéene dem defal nu lool kon yàlla na yàlla dolli ndam ci barke yonent bi ba àjjuma ak jàmm jërë ngeen jëf. bismillahi rahmani rahim.